te li ma fi dégg de xam nga mooy lan mooy dafa mel ni ñun dañoo ñëw juste dans le but interdire ñi nga xam ne ñoom ñooy charretiers yi yenn tranchées yi yi nga xam dafa nekk pratiquement dans le pôle urbain demewul non mais ñoom tracé BRT bi la ñu ne bu fa charretier jaar ça c'est un deuxièmement ñu indi ci sunu projet lu ñu économie en zone souveraineté alimentaire hmm. dénk ko ci yii ma lay wax yii ma lay wax nag mooy résoudre le problème yi nga xam ne les marchands ambulants moi résoudre problème mais gardez votre calme. allez franchement franchement continuez poursuivez. franchement franchement. non mais non mais non mais non mais. mon cher mais vas-y. prenez votre calme mal à prenez votre calme. non non non on est en train de vous écouter. allez-y. D'accord. franchement les allez-y allez-y y lu yomb nekk ca plateau. mais su boobaa day neex. allez-y allez-y ngay wax. nit ñi ma waaw. oh yaa ne da ngay quitté yaa toogaat ni doo quitté yaa wax yaa weddi sa bopp señu du ça on en a l'habitude continue. allez-y. franchement. je suis Mohamed je voudrais continuer le débat. allez-y allez-y je t'en prie. franchement je voudrais continuer continuer le débat. mais là là là franchement gisatuma euh, présence bi amati na solo te sénégalais aussi wax deug yalla ñu ngi ñuy déglu. allez-y allez-y. voilà allez-y bo xamné ça bo waxé ñu dagg ma. kenn dula dagg ci dañ la doon laaj rek loolu loolu mënul mais allez-y c'est fini. allez-y wax dëgg yàlla wax deug yalla <laughs> gars sank bima yoré ma livre bi di expliquer ñaata yoon la ma dagg. aywa aywa voilà. maa ngi maa ngi jégalu dagg nit ñi ne kenn du la dagg maa ngi jégalu sénégalais yi. maa ngi jégalu sénégalais yi parce que musuma ko def plateau bu ma dem damay continuer ba émission bi jeex.

je quitte le ah, plateau. Je plus au plateau. Allez-y. Euh, euh, dernier tour de table. Ah, chacun une minute. Nous euh, Non, non, non. pas Je ne pas revenir là-dessus. Allez-y. Pas besoin d'y revenir. Nous qui dérive sur les réseaux sociaux. Ah, Ousmane Sonko qui engage la bataille contre le clic. En deux minutes, chacun, allez-y waxtu sax pratiquement allez-y Adama sama gars yi maa leen di ziare di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abone ak di like vidéo yi. di leen wax ni maa ngi ànd Serigne Moustapha Mbacke di setu Serigne Abdou Lahad Mbacke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóor rek yàlla may na ko si tawféex bu baax a baax a baax a baax. ku si am jafe-jafe rek da ngay daal di jokkoo ak moom si numéro boobu mais day ñaan tamit day listixaar gars yi waa jii nag dama ko mere démb trop dama ko mere trop trop trop trop li tax ma mere ko mooy lan lay uti ci plateau Kër Dof yi lan la fay ut. premièrement saa yu ñu jugee wax seen waxu dof buñ la joxee parole pour nga argumenter pour wan sénégalais ni ñii ay dof lañ boo commencé wax. commencé teg say argument ñu xam fi nga jëm baaxul ci ñoom dañ lay saxato ñoom ñepp dal sa kaw wala ñu roubé la pour bañ nga égalé li ngay wax gisuma benn wax bo fa tambalé rek nga égalé ko sa yo jëlé parole pour e, e, argumenter pour léral askan bi ñu dagg la xam nga tay plateau bo fa dé dem peut-être sax du ñi nga xam ñoo ci plateau ba ñoo la fa taxa dem mais askan bi tok di sétane ñoo la fa taxa dem mais ñoom ñu la pour nga wax ak askan boobu parce que saa yoo commencé di waxte li ngay wax arrangé wu leen dañ lay saxatoo ruube la jaxase la ba foofu da nga koy mujjee tëj jàll ci leneen te leneen li ngay jàll timit boo ci bëggee développé ñu la loolu moom gis nañ ko ñun ñëpp kon fan nga mujjee mooy da nga quitter plateau bi nga dem sa yoon mais loolu li nga njëkk li nga mujjee noonu da nga ko waroon a njëkkee mooy da nga warul woon dem ci plateau kër dof yi loo fay wut foofu ñi la toog wër ñëpp amu fa kenn ku am xam kenn koo xam ne débat bi nga bëggoon a posé ci taabal ji mën nañ la cee fekk si amul kon saa yoo ko jéemee indi liñ la mënal mooy ruube la pour bañ nga eggale ko seetaan naa la ba ni ngay quitté plateau bi di jug gisuma benn wax boo tàmbali ñu bàyyi la nga eggale ko te ñoom liñ doon wax dañ koy wax nañ ko bëgg a waxee nga toog diglu leen même bu dee lañuy wax neexu leen yaa ngi leen doon diglu te ñoom saa yooyu wax lu leen neexul dañ lay dagg saa yoo tàmbalee argumenté ñu dagg la ba noppi nga continuer toog toog toog ba sa xol mënatu ko muñ nga jug yaa tooñ sa bopp yaa tooñ sa bopp waroo fa woon a dem bàyyi leen kër émission kër dof yi ngeen di dem yow foo xam ne boo fa demee ña ngay bokkal palaato bi duñ la duñ la sax indil ay ay nit yoo xam ne au moins am nañ tuuti xam-xam wala maîtriser nañ li ñuy wax ay ay ay madame ndooy boobu lañ lay indil kooku nga xam ne bañ na ko ba bañ certifié ko ñëpp xam ne dañ da koo bañ ñu indi la ko pour muy débat ak yow mais da ngeen am fulla ci seen boobu tuuti sa waay boo ma indee ci palaatoo ma xool ñi ngi may tegandool ci palaatoo bi mu leer ma ne ñii duñ samay nawle du ma toog ak ñoom bu yeboo ñu gisee ko nu nekk mais sa doo jàng sa xam di ñëw gars yi di teg ay waxu dof nga ñëw di indi ay argument di teg leer nga leer na leen ñi nga toogal ñii amu ci kenn koo nawloo wala ko tollool niveau pour mën a débattre ak moom nga kon continuer dafa toog ñu lay ruube ngay leeral looy leeral ñi da nga leen a mën a leeral bañ diglu la fas yéene wu ñu laa diglu lépp loo yëkkati lu jëm ci état bi muy lu baax duñ la diglu ndaxte teg nañ fa seen ay ruubekat yoo xam ne ñoom la ñuy wax ba ci kii présenté sax boo bëggee wax lu ko arrangé wul da lay ruube nga xam ne émission bi yëpp yow ñi la doon seetaan parce que ñu la parce que ñoom lañ seetaan mais yow lañ doon seetaan parce que gis nañ ne am na loo bëgg a wax loo xam ne buñ la bàyyi woon nga développé ko dinañ gis xam-xam mais dinañ gisaale ne tamit ñii nga toogal ci plateau bi ay nitu kopp kopp mooy mbalit moo nekk ci seen xel ba tax na saa yoo commencé développé ñu dagg la léegi yow nga bëgg a continuer toog ci émission boobu ñu lay daggatee di la xas di la di la ruube mais da ngay wàccee sax sa bopp bu benn instant am leen fulla tuuti ci seen bopp ngeen bàyyi yenn émission yi ngeen di dem booy dem ci émission nga dem si émission boo xam ne dinañ fa waxtaanee xam-xam au moins même bu dee am na fa ñoo xam ne sax ay naat fekk lañ sax ci côté bi mais au moins boo teg say argument dinañ la bàyyi nga développé ba ba ba mu jeex quoi parce que man maa ngi seedaan ay émission yoo xam ne. Euh, euh, maa ngi fay gis ay ay ñoo xam ne ay vrai vrai vrai naar fex lañ duñu mës a wax lu baax même buñ ko gisee sax duñ ko wax mais au moins émission bi organiser nañ ko ba nga xam ne bu kii di wax dañ koy bàyyi ba mu pare kee jël parole tontu ko correctement suñ paree kii jëlaat parole comme comme par exemple émission bu mel ne bi bi ñoom euh, kii di def dama xamatul nu mu tudd parce que man gars yi du ma leen di bàyyi xel émission bi euh, Bouba Ndour te muy bokk si émission bi lu bari ak Malal Talla émission boobu dama leen di dama fay gis ñoo xam ne ay naar féq lañ duma tudd seen tur mais ñooñu xam naa ne duñu mës a wax ci état lu baax kenn laa fa doon gis saa yu euh, euh, bu ñu amee invité mu taxaw ruube invité bi dépassé ko wax ko lu ko saf mooy birima te ma gisatuma ko fa mais à biri ma képp ku fa mënti ñëw même bu dee ñi nga toogal ànduñoo ak yow ci li ngay wax sax man dama gis ne ñu ngi doon ñu ñoom ñu ngi organiser seen émission ba nga xam ne bu kii di wax dañ koy bàyyi ba mu wax ba pare après bu keneen ki wax keneen ki bàyyi ba mu pare au moins sax organiser nañ ko au moins mais émission boo xam ngeen organiser wu ko bu kii di wax ngeen ñëw tëb dagg ko soo yow te moom buy wax ñëppay noppi ñeneen ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo far ànd waa Kër Dof yi famille Kër Dof ñoom bu ñuy wax kenn du leen dagg. mais yow mi nga xam ne yaay nit nga ñëw fekk ay dof nga ne cabax ci seen biir fii ba suba booy wax duñu la déglu parce que ñoom ay dof lañ liñ bëgg mooy nga wax leen ay waxu dof boo leen waxul ay waxu dof duñu la déglu voilà c'est ça nag léegi dem nga fa naqaral nañ la sës nañ la ci miir bi dem nga ba mënatoo koo gérer nga jug dem li nga li nga njëkkee nii nag da ko waroon a mujjee mooy waroo foon dem ba fay quitté ay plateau beneen yoonatee dina la servir servir laa ñeneen ñi nga xam ne dañuy jaay. xawma ma na lañ koy waxee voilà comme par exemple ay ay ay dañu dañu ñeme debaa wala affaire yooyu noonu am na yoo xam ne du question dañu ñeme débat am na émission yoo xam ne sa waay ku la fa invité da ngaa war a bañ émission boo xam ne nday faatoo nga fa toog Carrère nga fa toog madam ndooy boobu mu ngi fa toog mooy boy bu góor boobu tamit jigéen jigéen lu rek di def ay yëfu jigéen ima imagine toi mu leer na la ne émission bi genre nit yooyu ñoo fa nekk ñu lay invité ngay dem loo wut. après loolu la fa naqar yaa ko teg sa bopp rek après mu jeex loolu kese la de voilà. dégg jox hélas ngir yàlla joxe hélas ngir ma waxee jox ko bu la jox dee jooy dimbali ma nga jël. bing bing bing ak say góoram. bin Abdul Muttalib. bing bing ak say góoram. bin Kilaab. bin Murra. bin bin bin bin bin loolu rek.